salaamaaleykum wa rahmatullah monsieur le premier ministre cher frère ñoo ngi lay dalal ci pencum réew mi di ñaan mission bi yàlla yeggale ko di nuyu nag euh, mboolem sa collaborateur ministre yi nga xamante ne ñoom nga fi àndal monsieur le premier ministre ma dal ci tout de suite sa sa exposé wax ni c'est très beau c'est très joli c'est engagé Mais Monsieur le Premier ministre, le Sénégal a besoin de relever son panier ménagère lekk naan tëdd nelaw feebar faju loolu la Sénégal soxla Sénégal mi ngi soxla bu ñuy def équité territoriale ñu seet dëkk yi nga xamante ne ku ci nekk la nga yeyoo nga jox ko ko te ñu bañ a def par parloo Sénégal mi ngi soxla ay ndawam ñu bañ koo bind rek ci këyit ni war nañoo liggéey mais ñu liggéey te bu ñuy liggéey ñu bañ a def parparloo bañ a def recrutement politique di recruter ci ndaw yi ko soxla monsieur le premier ministre Sénégal mi ngi soxla ku wax ak les grèves répétées des agents municipaux des agents hospitaliers monsieur le premier ministre Sénégal mi ngi soxla kàddu ci wàllum rey bi nga xamante ne moo am ci biir réew mi Sénégal volontaire la ku mu neex dugg mu neex génn monsieur le premier ministre Sénégal ci loolu la soxla réalisation yi nag par force la ici à votre insu on a voté beaucoup de budget 4 000 milliards 3 000 milliards 6 000 milliards on en a voté on a fait 50 dans cette assemblée xaalis boobu li mu servir ci loolu lañ koy def mooy tali yi les autoponts BRT ce que vous voulez mais c'est ça les réalisations et c'est nous qui l'avons voté ici dans cette auguste assemblée monsieur le premier ministre accompagner vos réalisations su fekkente ne ce document là est destiné aux Sénégalais et seulement au Sénégalais monsieur le premier ministre jàpp naa ne équité li ma gis tey naru ko nekk en fin des travaux d'assainissement des eaux usées PAMIR contribueront à améliorer le cadre de vie des populations de Gandiaye Nioro du Rip Guinguinéo Koungheul Malem Hodar Diourbel Birkelane il en est de même à Pikine Est Rufisque Cambérène ainsi de suite Pikine Est c'est derrière Guinaw Rail Nord et c'est lieu où habite le ministre Issakha Diop qui en est le même ministre chargé de ce programme serait-il possible de faire équité en cette situation nous réclamons nous aussi Guinaw Rail de ce projet mais on le réclame aussi pour Niatimbar étant des représentants du département de Pikine on le représente pour beaucoup de zones de Pikine qui sont toujours inondées jël projet def ko ci sa biir commune. parce que yaa ngi la parole est à notre collègue Ndeye Lucie Cissé Fanta Sall se prépare. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, euh,